tey président mu ngi fay at bu jot lu tolloog juróom-ñeent fukki juróom benn fukki milliards ci étudiants yi tey ci suñu université yi am nañu cent dix mille étudiants yi nga xam ne téeméeri junni étudiants ak fukk yi nga xam ne dañuy jot weer wu jot seen bourse te may wax ne bourse yi président daf ko teg comme salaire fonctionnaire yi moom ak salaire fonctionnaire yi la ñuy fayandoo du tardé loolu tamit dafa ànd ak nga xam ne ticket restaurant yi dañ ko wàññi ñun ba ñuy jàng ticket restaurant ñu ngi doon fay fanweer. mais tey président wàññi na ko ba mu nekk ñaar fukki dërëm pour añ ak fukki dërëm ci ndékki président tamit ba muy door di ñëw 2012 université Cheikh euh, Cheikh Anta Diop bu Dakar juróomi junni lal moo fa amoon université Gaston Berger am lu jëm lu toll ci.

ñu ngi pare benn programme bu nga xam ne dañuy tabax ci université yi Sénégal lu toll ci fukki junni lal boole ci dinañ tabax ay restaurant fii ci Dakar Thiès Ziguinchor ak Bambey restaurant yi seen capacité mu ngi diggante ci ñi nga xam ne dañuy toog benn yoon lekkandoo ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk mbaa junni nit te gis nañ ne ñiy toog dina restaurant bi ci bis bi ci heure lekk bi dinañ leen changer ñeen juróom-ñeenti yoon donc mooy dina dem am na ci capacité yu nga xam ne dem nañu ba d'accueil de dix de neuf mille places loolu ci wàllu social bi la ci wàllu njangu njàngale mi gis nañu infrastructure yu bëri yi président tabax ak yu ñu sumb te nga xam ne nee naa dañ koy pare ci fii at déjà Thiès université Thiès fii weer dina dinañu recevoir bâtiment yu bees yi. dinañu ubbi tamit ISEP bi mais UAM wax naa ko moom ak USEN dinañ leen pare fii ak ko fii ak at muy yokk capacité d'accueil université yi parce que université bu ci nekk dañoo jàpp ne mën nga dem recevoir ba trente mille étudiants donc UASZ mooy bu Ziguinchor dinañu démarrer fii ak ñaari semaine bâtiment ya fa nekk ñu pare leen fii ak at université bobu tamit capacité am dina mëna yok ci tollu ak ñent jooni ay étudiants lolu président def nako mais ba légui taxawagul parce que dégg ngeen ko 1er mai mu wax ne jël na ben na projet bu bees bu nga xamné 52 deux milliards la pour que suñu université yi nga xamné ne amatuñu capacité euh, scientifique amatuñu équipement mu renforcer leen te loolu mu ngi jógee ci programme bu nga xamné université bu nek mo wax kat yi ñoo wax nak lan lañu bëgg ci équipement ñu dajalé ko renforcer ko muy juróom fukki milliards ak ñaar président néna dina ko financer té projet bi ñom jot nañu seen kii bi ñun fii ak ñaari semaine dinañu jéxal procédure de marché bi ñu commencer liggéey bi. gis nañu taxawayu président ci université bu Sénégal enseignement supérieur nga xamné def na ci ci juróom-ñaari at. 2012 2019 def na ci 300 milliards 2019 ak tay président egg 300 milliards yi nga xam mom la dugal ci ci université yi li nga kon gouvernement yi université